jëwriñ ziaraat naa la mbaa yaa ngi si jàmm yaa ngi ziar bu baax a baax maa ngi déglu léegi seen kii bi léegi benn ko rafetluwaat naa ko lool tarkal la mais man de juste daa am lu ma si bëgg a wax rek moom mooy dafa am góor ñoo xamante ni ñoo may seen jabar yenn yi si parce que jigéen dafa am noo ko war a mën a yoree si lan mooy si dëgg ak si la ak si fayra bu dugg jotee toogal nga wax ko boo gisee ki jabaram yëpp ko nii ba di ko manqué de respect parce que moo ko fenn moo ko fen waxu ko dëgg quoi na ne waxante dëgg couple communication moo ko lal donc moom diineem ak aadaam ak cosaanam permettre na ko mu am ñeenti jabar alors j'espère que maa ngi seetaan démb sax moom nee na signé ne accord boobu noonu ne moom ñeenti jabar la war a am alors kon boobu la waroon a am la am fayda am diñ ci boppam duma la ko nëbbu donc même ñun ñun ñëpp ay góor lan booy doxaan man ngaa doxaan na ko sa jabar mais bu mu bu leereen lii ni au sérieux la doxaan bi yàgg bi jaru ko gis nga nit ki bëgg nga ko ne sama jabar damay def lii damay def ni man de barki maam Seara la wax takk naa ñaari jabar ba may doxaan sama sama premier jabar 15 jours laa ko fréquenté ki ci des un mois laa ko fréquenté mais moom 15 jours je dis ko wax sama jabar je dis la vérité en même temps damay def lii damay takk lii damay takk lii mu xam koog man donc affaire ba affaire yi kalaatee ba ba ñëpp di ko wax. teewal moom yëgoon na ko bu yàgg mais xam nga la mooy problème yi nga li a yëg si biir kër boo ko yëgee si mbedd mi dafa lay metti faaw nga réagir non faaw nga réagir donc jabar ji tamit moom mi ngi réagir parce que gaañat bi moo ko fen moo waxul dëgg loolu moo metti mais nag jigéen da ngay war a xam ne jigéen nga ak quel que soit alpha ak lu mu la war nga xam kii sama kilifa la am na loo xam te ne waruma koo dund ak moom parce que li ma gis ni ñuy joué bi nii am na yu bëri yoo xam te dëgg la mais am na yoo xam ne yu yoo xam te ne man j'espère que yaakaar naa ne amul quoi man yaakaar naa ne gisuma benn góor bu jigéen war a mën a di di takk buum di diri te ngay jigéen ngay kilifa am ngay indi ko fi tànn ko si biir tànnee fi jël ko wóolu ko teg ko si biir kër apparemment la fii nga yem lii ngay def nii lii ngay def nii loolu méthode boobu noonu si ku góor ki la mais ku jigéen ki man pour ça parce que dafa dara ah dafa dara parce que ku góor ki moo waroon a am fullaam ak caractère am boo xam ne parce que jigéen ñi faaw nga am benn caractère boo nekk ñoom waaw boo nekkee moom di nga kaf di nga reetaan mais fi la war a yem na la fa yem. waaw bu bëggee dem bu bëggee dépassé borne yi nga xamal na ko lii nii nii ak nii la war a mën a demee nii la mën a demee mais pas ngay bàyyi yenn yi muy law yii nii ngay yii boo ko gis du dem yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg sëy boo ko gis du dem du dem léegi moo indi sëriñ jigéen ñi di sëriñ toog di def lii di dugg fii génn fi parce que am na jigéen ñoo xam ne boo leen naree takkal wujj dina lay yemaleeg si wujj bi de raay la la ñuy def nga dee ñu ñekk ñoom ñëpp ñu dee daay gis nañ ko ci dëkk bi wax ñu dagg say awra wala ñu xëpp la asib wala ñu tuur la diw la ñu tàng affaire yooyu moo bari Sénégal faaw góor ñi am fulla am fayda jéem a xam fi ñuy teg seen tànk man loolu laa gëm man faa góor ñi am fulla am fayda xam fi ñuy teg seen tànk bu baax te bañ a fen jigéen ñi nañuy wax jigéen ñi lin ne nañuy waxanteeg jigéen ñi lin ne jigéen boo ko fenee rek day yaakaar ne mooy loolu man loolu laa gëm man loolu laa gëm maa ngi jégal waat nag bu baax a baax a baax di la nuyu ak di la sant di la sargal tamit di la wax ne affaire yi fi ko teg noonu la yal na yàlla xeb dolli yal na yàlla def jàmm ak salaam si kaw si kanam rek si lu baax incha allahu rabbi fi ngeen dëgg seen tànk bu la ko teggi mukk allez ciao jàmm ak xéwal jaajëf